jaajëf sama gars yi salaam jaamu kum mbedd ni ges baa ngi nuyoo léegi maa ko mëcc wala waa dégg ko fay muy chef booy ji ji ji di terre et booy grand messi takk ma ne fu ne maa ngi leen bëgg bu baax a baax di leen ziar vous êtes dans votre émission Galsen Sama Game sur Equivox TV tey nag ñu ngi dalal benn ndaanaan M2 from France euh, mu génne projet bu nice moom ak Clayton Hamilton ak euh, sama waa ji Omre Zayan Omre Zayan waroon na ñëw Clayton new fii mais Omre waroon na bokk ci plateau bi M2 mi ngi fi rek c'est bon baax na euh, ñu fas yéene waxtaan ak moom ci projet bu mujjee génn DK7 M2 ñu lay ger ñu ngi lay delloo ziar ji de nu mu demee. sant alhamdulilah ñu ngi bu baax a baax. ñu ngi lay bëggee tamit vraiment remercier la ci invitation bi. Mm-hmm, voilà vraiment kontaan nañ trop. DK7 vraiment euh, album bi kontaan nañ ci tamit euh, voilà andi nañ ko léegi génn na donc yéen yaa leen ko moom quoi. choix bi naka la dikkee. Euh, sama première question mooy naka nga def ba choisir kii di Clayton ak Ombre. waaw Clayton ak Ombre au départ xam nga dama doon ut euh, en fait projet bi. Mm. man Paris laa nekk bon fii laa juddoo fii laa màggee. Mm. mais bi ma euh, dellu si fii ma ne bon il faut que ma def benn projet collaboration ak artistes sénégalais. Mm-hmm. donc ma xool ci panorama artistes yi nekk fii. ma gis ne vraiment Ombre Zayan ak Clayton Hamilton dañu am benn espèce su. xam nga seen flow dafa seen capacité dafa yaatu quoi mm-hmm. ñoom li ñu mën a def ils sont capables de faire vraiment plein de choses mm-hmm. donc loolu laa doon ut ci artiste quoi bëggumoon juste artiste euh, buy rap wala buy wëy kese mm-hmm. dama bëggoon ay artistes yoo xam ne boo leen tegee prod bu nekk ñu mën a adapté wu ci biir ko ci kawam mais ñoom ñaar danoo bokk monde bu nekk mun na ni ñoo xaw a njuróo lu ñuy def lu tax jëloo benn gaan boo xam ne day rap pur et boole ci Omre wala euh, Clayton parce que en fait dama bëggoon quand même benn couleur ça veut dire que seen ñaar en même temps dañu niroo mais ils sont différents boo xoolee bu baax c'est que ñoom fi ñu niroo ça veut dire que li ñu mën a def euh, c'est à peu près pareil quoi mën neen wéy mën neen rap mën neen li li nga wax noonu dëgg la mais en fait dama buggoon vraiment parce que man à la base rappeur la vraiment à la base damay def ay prod man maa def produ album bi yëpp mais à la base man rappeur la léegi ci album bi côté bi man maa ko gën a jël mhm. bi et bi vraiment ak euh, vibe bu malienne yooyu mhm. Clayton laa bëggoon quoi xam nga ci mhm. voilà voilà exactement. Euh, moo taxit euh, projet bi nice na comme nu ko sénégalais yi di waxee nga nekk from cap wala boog say maam juge cap ñëw. waaw mooy loolu daal. naka cap ah Cap Vert Cap Vert mu ngi foofu xam nga. musique bi foofu mu ngi dox dox. waaw waaw dara. non xaw ma ci dara c'est pas xaw ma ci dara non dinaa intéressé wu ci musique capverdienne bi mais xam nga ñoom foofu li ñu gën a mm, miin mooy seen musique. Euh, voilà mooy mais bon am na hip hop ah. foofu am na hip hop. bi foofu mais bon xaw ma ko bu baax. man vraiment bon man on peut dire que. je suis plus du côté Sénégal que du côté Cap-Vert même si Cap-Verdien laa d'origine mm-hmm. mais xam nga boo judd ci benn dëkk màggee foofu mm-hmm. de voilà di ci déglu ay mbalaax di xam nga rek <laughs> di football euh, nawetaan di lekk ceebu jën xam nga culture bi mhm. culture bi day gën a nekk euh, culture sénégalaise mais c'est vrai que c'est mes origines capverdiennes la te je ne le rejette pas au contraire mhm. je suis fier de ça mhm. mais voilà quoi c'est vrai que je suis plus baigné mais fii laa juddoo fii laa màggee donc euh, c'est vrai que fii laa gën a nampé quoi affaire bi quoi xam nga mooy loolu daal dem France ban année wuu euh, yàgg na de yee të të euh, France. Euh, yàgg na bi fa demee. waa yàgg na jàng moo la fa yóbbu woon. ay ay 14 ans la amoon bi ma fa demee. fa yóbbu woon. au départ kii jàng. jàng ah. parce que 14 ans ku dem benn dëkk. munoo fa dem pour kii kon commencé pratiquer foofu noonu. Euh, euh, en fait si tu veux man dama doon dem di ñëw parce que sama papa ak sama yaay ñu ngi fi ba léegi. Mm-hmm. donc damay dem di ñëw euh, ma commencé musique vraiment depuis le plus jeune âge hein, vraiment j'ai commencé très tôt la musique. et après bon on va dire que j'ai commencé à être actif dans la musique à partir de 2007. laa commencé di génne ay projet mm-hmm. mais sinon avant dama doon woy nii rek di foo rek foo la woon ko <laughs> doon ci def <laughs> même temps wala. voilà beatmaker la en fait à la base man euh, rappeur la woon dama njëkk a commencé par rap bi. Mhm. di rap di rap après ma ne bon commencé sonn ci beatmaker yi di ma sonal naan ñëwul suba ma def la benn beat tout ça ma ne non yi ñu ngi may sonal xaaral ma commencé teg sama bopp ci biir commencé ma commencé dugg ci machine yi commencé def samay pop propre musique et puis voilà ma gis ne affaire bi neex na ma et puis petit à petit ma ubbi benn studio foofu Paris léegi dañu am benn studio foofu et donc euh, ma commencé di produire xam nga projet bi par exemple voilà ñu produire ko bi vraiment c'est le premier projet bu ñu produire entre Paris et Dakar quoi voilà euh, waaw mais bi mun na projet. mooy sama premier projet vraiment effectivement. Projet. parce mais que avant avant waaw yaa ngi woon ci ay prod yoo xamante ay prod jàmbur la woon wala. en fait si tu veux bon xam nga avant 2007 man vraiment mooy sama pour début parce que avant dama doon foo noonu rek. di dégg voilà voilà job ak français waaw quelle somme mais euh, si tu veux c'était dans des projets. defuma musuma xam man artiste dama xaw a compliqué man dama am sama propre univers bopp. xam nga dama compliqué ça veut dire que man pour me mélanger ak yeneen artistes yi pour man sax c'est compliqué. parce que dama am sama univers sama gis-gis. te léegi man pour man balaa may dugg di def collaboration ak nit. il faut que ma sentir gars yi gis nga gars yi balaa may def euh, projet bi ak ñoom. dama leen xam ba pare waxtaan ak ñoom xam nu ñu mel. balaa may dugg ci projet ak ñoom. bokk ay projet ak ay artistes mais ay projet de compilation wala affaire yu demee noonu mais pas de collaboration parce que man je suis très compliqué comme artiste. <laughs> méttiwul woon bi ngay def soit bii nii di jël Omre ak euh, Clayton. méttiwul mm. woon ba nga leen di woo pour inviter leen sa projet. non méttiwul woon noonu parce que gars yi ñoom ils sont très xam nga ñoom li ñuy fil la ñuy def. Mm. c'est-à-dire que ñoom bi ma leen waxee waxu projet bi au départ mm. dama commencé ak Ombre Zayen au début donc dañu commencé euh, ma ne ko bon. j'aimerais bien t'inviter déjà benn sound xool ak moom xam nga partager benn studio ak moom xool moom nu muy réagir réactivité am et créativité am tamit xool euh, moom nu mu mel tamit ci voilà ci est-ce qu'on va s'entendre pas quoi xam nga boo def benn projet ak nit c'est comme si par exemple man ak yow dañuy dem ci dundu benn affaire quoi ensemble donc c'est important que man ak ñoom ñoom benn feeling donc bu ñu duggee studio ma xool ne vraiment nice gars la vraiment j'ai accroché humainement aussi donc euh, c'était pas compliqué parce que dañu def benn sound au début benn sound lu ñu def ak Laycha Diop sax voilà sound bi mu ngi ci biir affaire bi voilà après ma ne non vraiment euh, ombre vraiment gaayen bu nice la quoi après Clayton Hamilton moom euh, xam nga moom il est entre Paris et Dakar man Paris laa ko xamee après si diggante Paris Mali. waaw moom day voyager daal moom daal moom mooy loolu daal et puis même il a fait tellement de pays moom boo déglu sax même ci album bi. Mm. benn benn sound day woy carrément en créole entier. Mm. moom lépp la dégg day lakk sax naar moom dafa graw <laughs> donc en fait voilà donc euh, moom c'était vraiment le pont entre Paris et Dakar quoi. Mm-hmm. voilà mooy loolu. Mm-hmm. et nice gain vraiment ku. non daanaka voilà real gain. DK7. mun nga nu ñëwal si DK7 mooy lan. DK 7 daal DK bi mooy pour Dakar. 7 mhm. bi mooy setu Paris bi quoi. voilà mooy 60 man 77 sax la base yow. Mhm. à la base. 77 mooy seine mooy marne euh, sinon le 7 c'est pour 75 mooy Paris quoi c'était vraiment pour avoir benn tour boo xam ne xaw a codé wu quoi mhm. entre Paris et Dakar voilà mooy loolu. Euh, non M6 sax noon la lépp lu muy def day am code. léegi dañuy dugg ci biir euh, biir fond projet bi. am na benn sound boo def ak Laycha. Laysa mu ngi dëkk Grand doon def son nu Yandé Codou koobu woon na fi benn son Yandé Codou mhm. Laysa sa digganteeg moom. vraiment lu nice lu rafet parce que elle aussi j'ai beaucoup accroché moom euh, nu mu mel quoi vraiment humainement. Mhm. c'est-à-dire que artiste la. Mhm. da nga koy da nga koy sentir sax. moom mu nekku ci sa veut dire que moom nekku fi di kii moom day def lu muy sentir. et vraiment man loolu laa apprécié si moom. bon c'est pas une fille qui est dans spécialement le showbiz wala xam nga elle est Mhm. man c'est ça que j'aime chez elle donc euh, bi ma ko rencontré pareil c'était vraiment un bon feeling mhm. on a fait le morceau on c'était cool vibes vraiment nice quoi ndaanaan la léegi si biir projet bi la dañuy dugg euh, am na dolli am na cinéma am na fly douze titres la waa douze titres euh, la exactement pourquoi soit douze titres yi douze titres parce que en fait euh, si tu veux morceau yi dama ko doon man dama ko doon préparer mm-hmm. studio mm-hmm. def sound yi balaa sax gars yi di dugal seen voix mm-hmm. may def sound yi def sound yi bon may choisir entre sound yi yi ma doon yi ma gën a sentir xam nga euh, mais vraiment douze titres yi mooy douze titres yi nga xam ne dañ ko def amul sax beneen. Mhm. defuñu comme par exemple ñi di def par exemple album. di def ay 40 sound bonus voilà di après di si choisir 12. non ñun 12 lañu am. Mhm. ça veut dire que bu ñu nekkoon studio musuñu nekk studio man Ombre ak Clayton. Mhm. en même temps. ça veut dire que projet bi. Mhm. Euh, bi ma dugalee yenn sound yi dama ko def ak Clayton yenn yi Paris. Mhm. yenn yi Ombre ak Clayton ñoo dugub fii studio Sénégal. di ma yónni piste yi. donc man may récupérer piste yi di ko monter. voilà mooy loolu daal noon la ñu liggéey album bi. sound yi mën ngeen xam yan sound nga ci bind jox gaa ñu tegu ci yaa bind lépp wala dag leen bàyyi ku nekk bindal sa non en fait projet bi à chaque bu may def benn sound par exemple damay génne benn thème ne ok gars yi fii ci sound bi man dama bëgg ñu ad euh, ñu def thème cinéma par exemple. ma mm-hmm. yóndi leen sound bi. Mm-hmm. ne leen bind leen ci cinéma. Mm-hmm. léegi ku nekk day bind euh, couplet am. Ah. voilà ci album bi amul kenn ku bind pour keneen wala. bon def neen ko vite fait pour joxe ay idées. mais en général ku nekk dafa am arti arti ñëpp ay artistes lañ quoi ku nekk dafa am univers boppam. donc ku nekk dafa ñëw développer thème bi. voilà mais à chaque fois sound dama leen di sànni jox leen benn thème. gars yi dugg ci mooy loolu daal. événement yi. kañ mm. kañ lañ ko mën a xaar ginnaaw bi projet bi génnee booba ba léegi yaa ngi def tournée. waaw mais gisuñu nga teg benn showcase. waaw incha allah en fait ñu ngi xool justement pour teg benn showcase d'ici incha allah euh, la fin de l'année. Mm. voilà loolu la ñu euh, projeté mais de. sori na mais ñu ngi xool daal en tout cas ak gars yi naka lañ koy mën a teg parce que xam nga c'est pas évident que Clayton mu ngi à gauche à droite. Mm-hmm. Ombre mu ngi fii mais xam nga projet bi c'est projet aussi à long terme parce que projet bi. Mm-hmm. di si quelque temps dañ dinañ ci tegaat ay yeneen sound def ci beneen réédition. xam nga mm-hmm. histoire que affaire bi di continuer di dund. parce que double album bi génn na jeex na parce que ñun li ñu bëgg def mooy benn tournée Sénégal déjà après benn tournée internationale. voilà. mooy loolu ñu ngi liggéey ci dates yi dates yi amagul euh, mënuma la wax exactement ban date mm-hmm. mais d'ici la fin de l'année incha allah mooy date bi mm-hmm. ñu teg benn tournée voilà benn tournée showcase voilà benn showcase déjà Sénégal et mm-hmm. puis après mën mën ko yóbbu feneen ba l'international ba pare incha après projet bi retour yi ñu ci jot nice na niceul lii la waroon am warul am lii. nice na nice na ça veut dire que gars yi internautes yi euh, ñu ngi koy découvrir parce que sortie bi c' est plus sortie digital mhm. xam nga yow instant bi am nga benn copie. mais man maa la ko jox. te lii kele clé la voilà ah. la am na ay CD sax mais si tu veux l'essentiel sortie bi mu ngi ci réseau yi quoi mu ngi mm. ci Deezer euh, Spotify mooy mm. toutes les plateformes daal ah. voilà léegi internautes yi mm. ils ont bien reçu le le le message sénégalais yi ñu ngi koy découvrir parce que yi xamuñu ma bu baax ah. xam nañ Clayton Hamilton xam nañ euh, Ombre Zayen léegi ñu ngi may découvrir à travers plateau yi may def télé radio tout ça donc euh, voilà mais j'ai des bons retours parce que à chaque fois gis que cool projet bi c'est cool donc euh, c'est mhm. nice. Euh, mën nañ xaar tournée bi si fin d'année bi yaa ngi ciy waxtaan ak ñoom ñaar. bañ a ndax fiy nekk bëriwul. bañ a moom it lu muy dugg sous raison bi bëri na. waaw waaw waaw que pare nan comme tournée ni ngay defee ni ngay wëree di def tournée. ci mhm. rajo yeeg ci télé yeeg. ci mhm. yenn kii yi. yow di gis que tournée yi ñoom ñett ñëpp yéen ñett ñëpp. loolu moo tax tournée bi commencé ñu ko léegi lu mm. tax parce que en fait Clayton nekku fi. Mm. bugguñu justement def loolu ça veut dire que ñuy def ay playback yoo xam ne. Mm. man dama fi nekk di di woy samay parties. playback yi nekk ci ginnaaw loolu du nice. xam nga li ñu bëgg a def mooy vraiment ñu nekk sur scène ñu ñett. même am live band. comme ça affaire bi dundu xam nga loolu moo tax on va prendre notre temps mais dinañ ko def incha allah mu nekk vraiment benn concert boo xam ne on est tous les trois présents. Mhm. loolu moo tax il faut qu'au niveau des calendriers ñu mën a caler benn date boo xam ne. Mhm. gars yi ñoom ñett ñu ngi fii ñu ñett ñu ngi fii. Mhm. et ñu mën a def li ñu war a def vraiment ensemble quoi. Paris naka lañ accueillir projet bi. Paris pour l'instant on l'a pas encore promu promu parce que dama bëggoon man par rapport au projet. mu juddu fii. Sénégal Sénégal dama bëgg mu juddu fii lu tax parce que man fii laa juddoo tamit <laughs> donc c'est important pour man projet bi démarrer fii. Mhm. pour mu dugg Paris donc en fait le projet bi loolu moo tax ma ne c'est projet avec à escalier quoi dañ koy avec des des étapes ay étage la mhm. xam nga premier étage bi mooy fii dakaar fii lañ ko tàmbali après dañuy dem incha allah def benn tournée après génne ko Paris ak benn réédition ak concert Paris mhm. pour pouvoir l'amener à Paris parce que loolu tamit loolu laa bëgg ça veut bu ñu ko paree fii dañ koy yóbbu nank-nank ba mu dugg Paris mooy loolu nekk si si si euh, àll bi comme ay Kédougou Kolda. Tamba bu nu bëggoon am projet bi nga xam ne ñoom streaming xëy na peut-être. waaw waaw du bëri bu nu bëggoon am projet bi naka la ñuy def. il faut que ñu contacter yeggul foofu yëpp ah. yeggul foofu mais am na benn numéro boo xam ne. Hmm. Euh, mën nañ def en sorte gars yi jot ko. buñ la kojee rek sa page Facebook. voilà bu xoolal buñ ma kojee page page Facebook wala Instagram wala wala Twitter ñu yónni ma message. Mm-hmm. man mën naa leen wax naka lañ koy amee. naka lañ koy voilà mais am na benn numéro. Mm-hmm. voilà streaming projet bi. ba gars yi ñu ngi koy kii bu baax. waaw ñu ngi commencé commencé dugg ci affaire bi projet bi donc euh, bon gëstuwuma ci pour l' instant. Mhm. mais euh, gars yi ñu ngi koy ñu ñu ngi ci gëstu man am naa sax ay nit yoo xam ne dañ ko jënd en physique. Mm parce que dafa am ñu koy jënd tamit en physique. Mm -hmm. euh, clé USB wala CD. Mhm. donc maa ngi leen di gërëm sax et puis invité gars yi ne pas hésiter a nous contacter comme sa ñu jot ci parce que physique tamit mhm. am na maanaa quoi xam nga am kii bi di ko gis am na ci biir CD bi sax crédit affaire yu demee noonu quoi. quoi. yenn grand yi yi nekk ci mouvement hip hop bi. duñ la yan retour nga am ci ñoom. ñoom dañ ko valider ah par exemple euh, jot naa dem euh, kër Awadi. Mhm. DJ Awadi Awadi déglu na ko valider na ko bu mhm. baax a baax sax. Mhm. Euh, ñoom Mao ñoom Fata ñoom ñëpp. Mao moom yéen bokk génération. voilà non Mao moom voilà voilà mais ñoom vraiment ñoom euh, voilà mais ki kër Djidji Djidji Awadi laa jot a ah. bu ma ñëwee fii. Mhm. Euh, donc moom def na ko relayé na ko sax moom mhm. vraiment euh, il a beaucoup aimé beaucoup apprécier mhm. surtout projet bi le fait que mu nekk benn mélange des trois styles tout ça. et puis plein d'autres il y a beaucoup d'artistes qui ont vraiment relayé le truc quoi ouais ouais. li nga siy daj ombre ak euh, Clayton ñu ngi ko si daj ci côté communication bi pour ñëpp jot si. en fait si tu veux à la base projet bi c'est comme sama projet la à la base. Mm. ça dire que man maa leen ci andi. mais yéen defandoo son yëpp. mais mais ñoo defandoo son bi. Ah. son yi donc ñu ñu ñett ñooy partagé son yi mais on va dire que projet bi financièrement tout ça man maa ko porté. Hmm. xam nga parce que sama label moo ko def donc euh, ñoom ils viennent en tant qu'artiste. voilà ils ont le côté artiste donc mm. euh, ils xam nga ils sont plus libres que moi par rapport a yenn engagement yi voilà man maa ko war vraiment porter quoi projet bi mm-hmm. mais sinon i ma donne la force au maximum saa saa yu su nekk euh, quand Ombre Poète la il est là dans les interviews mm-hmm. voilà Clayton il fait ce qu'il peut mu ngi partager affaire yi via ses réseaux mm-hmm. donc gars yi ñu ngi jox doole affaire bi bu baax sax ban message ngay lancer par rapport ak projet bi émission bi mat na voilà man message bi ma war a passé mooy xam nga euh, fu ñu mën fu ñu mënti toll hmm. mën nañ def lu ñu mën lu ñu bëgg hmm. egg fu ñu war a egg hmm. parce que xam nga projet bi par exemple euh, au départ ça n'existait pas te mu ngi nii xam nga mais on est trois de trois univers différents ñu bokk benn projet xam nga seddoo nañ benn affaire mooy passion de la musique ñu def ko ensemble ñu partager lii def ci douze titres mm. alors que ku nekk dafa am projet boppam donc pour man message bi c'est que mën neen manko def li ñuy def di dem ci kanam xam nga parce que problème bi tamit li ñuy wax des fois euh, euh, des fois ñu ne waaw rap galsen bi du génn affaire yu demee noonu des fois aussi bu ñu joxante doole suñu biir mm-hmm. mën na gën a avancer donc euh, man je pense que message bi mooy vraiment partage bi ñu am entre ñu trois artistes de trois univers xam nga par exemple Clayton Omb ak Ombre mënoon nen euh, di xam nga ñoo bokk euh, univers mën nañ ne voilà man di commencer di jalouser seen bopp mais amul loolu mhm. fraternité moo ci am donc loolu la ñuy bëgg vraiment teg en avant quoi featuring dafa am solo si si musique boo xoolee Nigéria loolu bokk na ci lu dooleel seen musique Sénégal dañ war di def loolu lu bëree bëri di def ay featuring di génn si yeneen dëkk yi. di def ay featuring ku ci mel ni Dip. du mhm. ko mu ñëw yow moom ngeen def dara. mooy loolu exactement ci dara yow. voilà exactement waaw mooy loolu. et échange quoi. mais Sénégal looloo fi manqué moo tax suñu musique bi pour mu pousse day day. voilà et puis aussi solidarité et puis gars yi jàpp ñu parce que xam nga nit ñi mooy tax projet di génn di nekk en valeur. Mhm. mais bu dee ku nekk. xam nga artistes yi dañu bëri ku nekk dañuy xool affaire bi ne waa kii artiste kii ban artiste la xam nga dañu am benn jugement par rapport au fait de yow artiste nga il faut ñu xool beneen affaire boo xam ne day gën a sori par exemple américain ñoom ils l'ont très tôt compris mais ñoom ñi ngi def ay featuring ak ay ñoom dañuy jàppante mhm. même bu nekk kooku nekk sax ci pop keneen ki nekk rap hardcore mhm. dañuy jàppante parce que dañu xam ne affaire bi dimbalante la mooy tax mooy nga nekk dans la lumière mhm. mooy loolu daal am na solo émission bi mat na ñu ngi lay béggee bu baax a baax. ñu ngi lay sa teewaay vraiment maa ngi lay béggee te tamit waa DK7 tamit ñu ngi lay béggee di la gërëm bu baax ombre mu ngi lay nuyu bu baax mu ngi jégglu parce que tey waroon na fi ñëw. Mhm. mais dafa am empêchement ah, mais voilà. merci pour l' invitation. M2 jaajëf kon ñu ngi xaar tournée bi vingt kii décembre incha allah. waaw incha allah ñu ngi liggéey vraiment pour am ay dates yu euh, yu fixe comme ça di ngeen ko xam quoi incha allah. fu mën a toll rek ñun ñu ngi ko ñu ngi ko yëg. voilà ñu ngi lay bëgg bu baax a baax. di wax ni kontaan nañ ci dalal bi. kontaan naa vraiment trop merci waaye. jili de xam mais. après bi da ko puusaat. dama ko puusaat pour gën communication bi gën a jàll gars yi commencé découvrir euh, univers bi maa ngi leen di invité. vraiment Sénégal moo dàq France nag xam nga Sénégal moo dàq France foofu. léegi France dañ leen di tëj rek. <laughs> koo dañuy tëj kay. ñu ngi koy bëgg bu baax a baax moom M2 from France ñu koy bëgg bu wér a wér mu génnee projet bu naas DK7. Euh, di wax gars yi nañ ko dem déglu ji YouTube ban vidéo nga def sax si kii si dollil waaw am na bu ñu mujjee def mooy dollil voilà mais def nañ yeneen sound na waxoon naa la nga vidéo ko voilà DK7 bon du vidéo parce que dañu dañuy dañu def benn compilation ay challenge ay danseurs ñoo ko def. Mm-hmm. ñu def benn espèce su xam nga c' était pendant le confinement c' était compliqué. defuñu clip vraiment mm-hmm. mais am na yeneen clip bu ñu duggee ci internet bi ñu dóor M2 Clayton Hamilton Ombre Zayen di ngeen gis ay clip yu bëri foofu. Mm-hmm. voilà jaajëf ñu ngi koy bu baax a baax sama gars yi jëli derroon Galsen sama game yaakaar naa ne émission bi neex na leen maa leen di bëggee bu baax a ba beneen yoon respect si ñëpp.